Wahlu uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi mbokki auditeur ak auditrice yi ñuy déglu di ànd ak ñun si chaîne bii ñuy wax Al Misbah TV ñoo ngi leen di nuyu di ñaan yàlla na yàlla defal leen tawfiq suñu kàddu gi yàlla leen fekk di julli si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla nga yaatal suñu dënn ba li ñuy wax mu mën a leer yàlla na nga yombal suñuy mbir yàlla na nga fetti fecci suñu làmmiñ ba mu leer mbokk yi ba tey ñoo ngi ànd ak yéen si tiim euh, suñu dars bi nag ñoo ngi ñëw si naka tiimee melokaanu tiim sifa wa sifatuhu ay melokaanu tiim melokaanu tiim nag mooy li ngay jëkk a def an yan wiya dafa yéene istibaaxata salaati jéem a yéwénal julli maanaam jéem a daganal julli si tiim bii muy def wa yan wiya dafa yéene nag minal xadasil akbar si toj gu mag gi in kaana muxdisan su fekkente ni dafa tojlee maanaam day yéene moom tiimam bii mu yéene si mu dindil ko toj gu mag gi su fekkente ni am na toj toj gu mag gi nag suñ ko waxee euh, mooy sëy mooy dem wanag naka noonu in kaana muhdisan hadasan akbara su fekkente ni moom dafa amee toj toj gu mag gi sëy toj la bu fekkente ni da war a sangu te ndox amul tim war ko remplacer da ngay tiim julli su fekkante nit ki dafa dem nak ba génn ndox amul te mu wara julli ah fay tim. bu fekkante ni dafa toj ci si xeetu yu jàngale won ndox amul day tim. légui nak budé tim, lan lay wax suma yaqulu bismillah da fay wax bismillah kon gis nga bu ñew rek tim boy waxal ci suuf bismillah comme ni ngui koy waxe si japp wa yastamilu saida mu daal di jëfandikoo nag léegi pàkk bi muy tiime waxoon nañ leen lan mooy pàkk suuf si wala xeer bi yadribu alayhi bi yadayhi daf si dóor ñaari loxoom yadribu alayhi day door si pàkk bi bi yadayhi si ñaari loxoom jami an ñaari loxoom yëpp daf koy jël daal koy teg si suuf wala dóor ko si xeer bi jami an darbatan waaxidan benn yoon fa in taallaqa bihima un su fekkente ni nag daf koo teg ci suuf xool am lenn lu si taq lu mel ni ay bantak yooyu mu daal di koy fëgg moo tax ngay gis léeg-léeg ku teg loxoom fëgg nii tekkiwul ne daf koy fëgg pour suuf si dañ déedéet da koy fëgg nii su fekkente ni am na lu taq si loxoom wala lu mel ni ay bantag yooyu. moo tax ma ne wa in taallaqa fa in taallaq su fekkente ni dafa da dafa aju. bihimaa si loxoom yooyu shay'un dara nafadahuma nafdan na leen fëgg fëgg boo xam ne nii fëgg bu oyof la bu ko defee nag wa yasmahu biha dóor bu njëkk boobu mu daal di si massa bopp mu daal di si massa biha wajhu waj xar kanamam wa lixiyatahu ak sikkimam yabda day tàmbalee nag minal ala si kaw ilaa an yastafiyahu ba nga xam ne dem na ba matal si kaw ba ci wet yi ba ci suuf si yëpp mu daldi koy masaa ci xar kanam gi masalan tey nii ngay def ma won leen ko soo defee nii daldi def nii bu ci dara taqee fii ngay tàmbalee ci kaw wàcc def nii def nii ba ci suufu sikkim bi kooku benn door bi la. kon noonu ngay tiimee su ma bu uxra mu daal di defaat nag ñaareelu yoon bi kon dafay def ñaari door beneen bi li yadayhi ñeer ñaari loxoom la bu ko defee ñaari loxoom yooyu nag summa yamsaxu zahira yaddihi mu daal si masa biti loxoom alyumna bu ndejoor bi bi yaddihi si loxoom mu def ko noonu it si bu càmmoñ bi al yusra bu càmmoñ bi xataa yantahiya ilal mirfaqi ba mu jeexee si conco bi kon ñaareelu dóor bi soo defee nii ñaareel bi nga daal di def nii sa loxo gis nga biti loxo bi moom la la wax nga tàmbalee ko fii daal di def nii ba si conco bi nga tourner sa loxo daal di koy def nii gis nga. def nga bu ko bu ndejoor bi jëlal bu càmmoñ bi comme ni nga ko defeen bu càmmoñ bi nga daal di def nii it si biti loxo mi ngay kiyee si suuf boo ñëwee ba si conco bi nga wëlbati sa loxo mu daal di wàcc gis nga su wàccee gis nga sa baaraam bii day dugg fii. a ah, nga def nii def nii def nii bu la neexee it nga bañ ko xalil nga def nii kon tiima ngoogu moo tax mu ne su ma yam saxu dafay masa zahira yaddihi biti loxoom al yumna bu ndejoor bi bi yaddihi si loxoom al yusra bu càmmoñ bi it xataa yentaxee ba mu jeexee nag ilal mirfaqi ba si conco bi su ma yem sax mu daal di masaa nag baatinaha biir loxo bi comme ni ngeen gisee ma def ko ilaa axiril asaabi yi ba fii baaraam yi jeexe noon da koy def ndejoor bi su ma yem sax mu daal di masaa nag zahiral yusra li nga xam ne moom mooy biti loxo càmmoñ bi bi yaddihil yum naa si loxo ndijooram kon gis nga loxo ndejoor bi lay masaawee loxo càmmoñ bi loxo càmmoñ bi lay masaawee loxo ndijoor bi ilal mirfaqi ba mu yëg si si conco bi su ma yem sax mu daal di masaa nag baatinaha biir loxo bi kon gis nga biti loxo bi lay jëkke daal di mujjee biir loxo bi biti loxo bi day dem ba si conco bi daal di loxoom tàmbalee si conco bi ñëw ba si baaraam yi muy biir loxo bi comme ni ngeen gisee ma def ko muy bu defee nii mu ngi si biti loxo bi bu ñëwee ba si conco bi day tourner loxoom ne léegi nag ci biir loxo bi la ba mu yëg si baaraam bi kon noonu mooy tiim ilaa aaxiril asaabi ba mu ñëw si mujj li nga xam ne moom mooy euh, baaraam yi mu ne nag léegi wa yajibu war na taxliilul asaabi nga xaliil nag baaraam yi kon dafa la ne war na kon booy tiim boo yëgsee ba si loxo yi na nga xaliil baaraam yi masalan comme ni ngeen gisee ma def ko léegi nii mooy boo ñëwee xoola xaliil baaraam yi nii la nii. nii nii nii ba mu jeex loolu mooy xalil baaraam yi kon dafa war kon nee na war na waxu la dagan na waxu la dafa ni war na wa yajibu war na taxliilul asaabii nga xalil baaraam yi boobaa nag bu fekkente ni danga ngaa nag takk jaaro wa nazul xaatami da ngay summi nag jaaro bi xam nga gis ngeen nii ma takk jaaro su ma doon tiim damay dindi jaaro bi. ba tiim ba pare ma solat jaaro bi moo tax ma ne wa nazul xaatami ak summi jaaro bi mu ne fa in lam yanzihu su ko summiwul nag ay lam yujzihi du ko doy maanaam su summiwul su summiwul euh, jaaro bi ñàkk summi googu kat loolu du ko doy si mu tiim léegi nag tiim dóor bu njëkk bi mooy farata waaye dóoru ñaareel bi sunna la wa darbatu saaniya sunnatun sunna la moo tax léeg-léeg da nga gis ñoo xam ne nii dañuy tiim dóor bu njëkk bi rek te du ñu def ñaareel bi bu boobaa it am na ñu tiim masalan nga daal di def nii dóoru dóor bu jëkk bi def sa xarkanam kanam nii daal di def nii say loxo def nii loxo ndejoor bi jóg ni allahu akbar benn door rek nga def ndax boobu mooy farata moo tax am na ñoo xam ne ni ñu bari benn dóor boobu la ñuy def ndax dañ ne comme comme mooy farata te noonu la ko yonent bi jàngalee woon kon nañ ci yem waaye fiq ñëw ni nañu def ñaareel bi moo di ne dóoru ñaareel bi nag moom sunna la moom mooy bi ngay dem ba si conco yi moo tax mu ne wa darbatu saaniya dóoru ñaareel bi moom sunnatun sunna la wakaza almasu ilal mirfaqay naka nga masaa ba si conco sunna la kon gis nga kon farata bi mooy xar kanam gi ak yéene ak dóor bi ngay dóor si suuf si bu jëkk bi loolu mooy farata bi moo tax mu ne la wakaza naka noonu almasu ilal mirfaqay ni masaa si ñaari masaa ba si ñaari conco فلوقت ala darbatin wahidatin lil wajhi wal واليدين ajaahu gis nga lima don wax neena bu yeme nak ci dor bu jekk bi nga xamne mom xar kanam gi rek la massa ak ñaari loxoy mu ne doyna kok dana ko doy manam amna tim moy kom nga def ni dor bu jekk bi massa sa xar kanam massa sa ay loxo ni nga xam ne doo defaat dooru ñaareel jóg kàbbar mu ne même bu yemee foofu baax na doy na moo tax mu ne wali wala wiq tasara même bu yemee ala darbatin waahidatin si benn door bu jëkk bi lil wajhi ñeel xar kanam gi wal yadday ni ak ñaari loxo yi mu ne ajjaahu loolu doy na ko mu ne wala wiq tasara fii mashi yadayhi même bu yemee si masa ñaari loxoom alal ku ay ni ba si ñaari tikki jara yi tikki jara yi mooy fii mooy fi ñuy takkee jara mag ñi ñoo ko daa dàkkantelee tikki jara mais ki mooy fi ngay takkee montre rek nee na même boo yemee foofu doy na kon dóor bu njëkk bi yaa ngi yem sa xar kanam ak sa tikki jara léegi nag marsi yadahi alal ay ni wasalla mu daal di julli moo tax ma ne wala wiqtasara fii marsi yadahi alal ku ay ni wasalla aada fil waqti waaw dafa ni su fekkente ni moom si ñaari loxo yi rek la yem deful xar kanamam waaw loolu la wax mu wala wi tasara gis nga su yemee alaa yadayhi si ñaari loxoom mu daal di julli julli googu daf koy daf koy baamtu masalan ñëw tiim def ni samay loxo jóg kàbbar julli googu daf koy baamtu ndax bàyyi na xar kanam gi te xar gi mooy farate bi jëkk bi maanaam moom lay wax damaa ñëw waxtu wi moo tax moo wala wi tasara su yemee fi mas yaday ni si masa ñaari loxom kese ilal ku ayni ba si ñaari tikki jara yi bu fekkante ni lol dong la def deful xar kanam gi wa mu dal di julli mu ne julli googu aada daf koy bamtu. fil waxti si waqtu wi kon gis nga kon ni ñuy timé moy ni ñu len ko waxe wax nañ len ne kon si bir njangle mi ñaari façon tim gis ngeen ko si ñu jëk wax moy bi ngay dor dor bu jëk bi daldi masa sa xar kanam ak say loxo basi tikki jara yi def benen dooru ñaarel bi daldi jël sa loxo ndejor basi si bi delu ci wat nii sibir bir defat nii sa loxo càmmoñ delu ci wat daldi jog kabar kàbbar moy euh tim bu njëkk bi mu ne beneen bi it bi it da nga to da nga door sa loxo masaa sa xar kanam daal di def nii say tikki jara jóg ni allahu akbar ñaar yooyu la fi jàngale kon ñaari façon tiim yaa ngi noonu kon yow mi nga xam ne yow yaa doon laam-laame tiim tiim a ngi noonu noonu lañ koy defee si si lii lañ koy defee di ñaan yàlla nañ yàlla defal dégg ak topp te ma leen di wax nag dars fiq yi lu am solo la ndax bari na tey ñoo xam ne nii dañuy dem ba nekk mag di la wax naka lañuy tiime tiimee tiim te moom mag la. te tim jamono bu ndox amut rek tima fay ñew te ndox bu amut nit ki wara sangu farata war tim wala mu wara japp ndox amut warna tim su ko mënul nak bu boba du mëna julli ndax bu boba kon tim mënuko kon lepp lañu wara man buñ ko buñ ko gàttañ lu ndax ndox bu ñak daf ñuy bet yalla ñu yalla defal top wa sallallahu ala sayidina muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بيت الولايات فيه ومفتاح الخلود وختم الكل